ngirum sëriñ bi le jàpp njaamburey la ci war koo xam ni kii jàpp ci njaambur du mucc ci lor ngirum sëriñ bi le jàpp njaamburey la ci war koo xam ni kii jàpp ci njaambur du mucc ci lor kuy woor a kay julli ak koo xam ni def ti ca ci ñoom ak la def yow te sàmm sa mbir ak sàmm day sàmm sàmm sàmm jur gi nga yor sàggan ci sa jur ba sa jur bara ku xam lu ko jar biir ak pëyëg loxo làmmiñ tànk nopp ak gët yii rekk rekk di sa jur dee ci farlu bu wér bul gës mbirum kenn bul wax diw ku xam lu mu yor ciy soxna sax na mu day kuy gëstu doo kañ yor xamal sa bopp ak sa waa kër ak sa kër bu rafet njagam dangay lim limal say soxna ak ña yor ñu ñépp noppeenu war tey fas ci nit lu rafet tey soxla woo sunu mbir wëllis mbiram ku ne far ku saytu kenn na yar boppam te yar kamu yor ku saytuwul kenn yar boppam te kenn bañ a mer ku xam lu wér na ko wax boppam te wax ko ñu ñam ku nekk mbootaayam ak boppam la war di defar ku am njariñ na ca jox boppam te jox ca ñu ñam te jocce képp ku koy ngéejoo karaasa ka for mayal sa bopp ndigal ak gaaya jàpp ci yow bul may ndigal ku la naa man saytuwoo sama mbir kuy bañ nga dib sëriñam muslul nga dib sëriñam tollul fu nit tollu kon doolor te kenn du la lor addina moo mën a nax ndaw nax na jópp ku xam ña dooni buur ak i baadoolooti sax anañu ña daa dawal seeni faste jàppi jaamaka ma di jaayi jaamaka jiital moo ku xam anañu ku xam ña daa xëy di wër njar fukk ak ña fi daa xëy bis tojub dëkk ñiy jooyoo ka daw anañu ku xam ña daa tëggi junjung woote ñépp di ñëw ak gaaya daa xeebi baadooloo ka xas anañu mbooloo ya daawër gàddu seeni fital di sang kay sang tey jii nag ku xam anañu moo jaaña daa dox di wëndeelu yi xaree ka wasal akay bi ñaaroo ko dàkku nit ku xam anañu ña daa reyu nit a kay reyloo ka jekki ca kaw di xulli ay gët a kay xoolee ka bew anañu ña daa reyanteeka woo aw nit ñu xëy nitirim di diglu seeni ndigal ñooñee ku xam anañu ña daa bañanteeka bindanteeka yooli sëriñ akay añaanaka ñaanu ay ku xam anañu ña daa weranteeka bojjantey gobar di xuloo dina anakay màndi moo ñooñee ku xam anañu mu yàlla moo bon ku koy def ak mu jëm bu rafet mboolem ña def lu baaxul kenn xamul anañu ña doomi buur ak i baadooloo ngi bokk ni mes ci suusi gaaya rëyoon ak gaaya sew anañu tuubal te sant te wut jaajëf fa yàlla ju wér bul bokk mukk ci ñii neefaa ku xam anañu maa ngi di tuubati saa mooy gii di santati saa may gii di laajati ndolle ndaxte lépp a ma war sëriñ bi man maa di moykat yaa di jéggile kat mooy kat bu am jéggalaa kon ak mooyam du ko lor jéggal ma tey gépp mooy goo xam ni maa la ko mooy te may ma may yu ni xos yuy wéy di wéy ni xasar yaa saytu jaabi yaa fii tijji bunta ka tëj tëjal nu bunt bu lor xar seeta aw din yër yaa saytu caabi yaa fi tijji bunta ka tëj tëjal nu bunt bu lor xar seeta aw din yër tijjil nu it bunti say mbég yépp ak sunu mbég tijjil nu say buntu it bun fa sa kër bun dikk mukkati nun ngay jàpp buntu di tëj mbaa ngay korose te naa seytaane nii dana mer ngir nun danoo amatul tey benn bunt bu dul sa bunt bii boo ko dee tëj mbàkke luy sunu mbir ubbil nu yaatal nu ban bég may nu jàmm teree dalal sunuy xel te waxtaanal nu yow ki nu jur xamal ne kenn amatul kët jenn ndey ju la mooy mbaa benn baayit bu dul yow far nu boole defar mboolem lu bon lu nu daa def mbaa nu daa ko xalam fan dégg saw tur ba tey jii lépp boole ko far nun far nu koo far mu naagub jëll naagu gu wér ngir képp kun masa gis jëllam du waaja nga far gaalu tojal yàqulug dex ngir du tax mu xesaw du tax ku mos dex ganaa dex gi ku xam lu ko jar te xam ne yow ëpp nga dex ndaxte sàkk nga dex bagoo ga dex sàkk dex guy te xam ne yow ëpp nga dex ndaxte sàkk nga dex bagoo ga dex sàkk dex guy dox di feesali xur sakkam amul yaa di géejug dex yu rëy yi la wër yaatab bu dex yi ba gennuk dex du jeex a kafe njëgam danuy bona bon bay raw ku daa bona bon ngay baax a kay gën a gën bay gën ku daa amutur xam nañ ni moo gën a bon kuy noppi nit mosafar yëg nañ ni yaa gën yow it kuy noppi nit mosafar sa sel liggéey rekk sa sel liggéey rekk a suuxal jëf yu bon yi nu jëf tàggoo ki baay ndey yow ban ba rekk a ko jar sooxal nga mboolem ku bon mboolee bon bonamit ku bon desul mbaalu bon yow daala def la war suuxal nga mboolem ku bon boolee bon bonamit ku bon desul mbaalu bon yow daala def la war tilim sëful dex te xam nga géeja ëpp dexit moo tax ba mooy yile nuy mooy booya boo dunu lor sëriñ bi dàqal nu biir ak biti lépp lu nuy booral te it lu nuy bégloo te yaane fa yax musal nu faw ci xëccoo lëf musal nu ci mboo lem lépp luy ay bal xol ak lu koy taxa nax musal nu faw ci xëccoo lëf musal nu ci mboo lem lépp luy ay bal xol ak lu koy taxa nax danoo amul doole moo tax nuy moyoo karagal faral tuxal lu nu jaaxal mbaa nga jañ ko ci pax seral nga guy sunuy xol ak sunuy yaramit te faj nga aajo yi yépp ak lor yi yal na nga sax li nuy bañ li nu jaaxal lépp yaa ko falang li gën ci nun ak li nuy wut lépp yaa nu ko jox wëtal nga seytaane leeral xol yi far sunu mer xëy faj la tax sunu xol daa war waree ka wañax masakkooti ndimmal wall man ci saa sang bii naxee kay ware masakkooti ndimmal akub wall man ci saa sang bii dul naxee kay ware du wax mukk luy dañ du nax kenn it du war kenn new doj la léppam wére bu wallam nga dikkee nu jag yal na ñëw te fekk lépp luy sonle ak luy lore bu walloonu jot jopp raw jopp ngir lafañ saa su duggee saxaaram sori te baaxam gi moo ëpp bon gi ci nun li lee tax ba nun nekku nuy ter-teri danoo xam ne nun ñi boroomam da koy xaloorus ci nun faw ngir wëllëre gisal boo jógee ànd akub xaj di wéy ñurus xaj ba ngir yow nga fara koy tere lu dul jàmm ak mbég asal duutu am suñu sangaman lépp gën fee gore nanuy seenu ndolleen lu aku yiwu nit ñépp naa moo bari sëriñ bee jañax nooti ndimmal lu réy lu dul ànd akub coono ak kër-këri jañax nooti ndimmal lu réy lu dul ànd akub coono ak kër-këri jañax nooti ndimmal lu ànd ak ngërëm akuk jaggu xel masalëxee yari yari suñuy mbir na jag ak suñuy kër bu wér na jag faw doy lul nu wëllis bëre ku nuy dëkk daanal ku nuy xas cawal ku nuy yab faral fil ku muy terteri ku nuy sopp soppal ku nuy fay fayal kooka muy jër jëri sant nay sant tey yokku nag ku nuy gotti nay suufe tey lar lari ku yéene la fi yàlla na far loola sex mu diw yiw mu diw ay ku mer loo mere dama jàpp saa bopp ñag rekk man te kuy mer ci am ñag xaloo naa ware ma jong man mbër mi dem mépp réew te not mépp mbër jël ndamal mépp réew mi dem mépp réew te del seeki ndam nag yu dul jeeti far ilif gaa yi daa fuu di réew lu dul gëm ko ak tagg jëf yi mu jëf du mbir waaye xuuxuuñ yeewoo ka néew joxal ban ba say mbir te wey ciy waxam te far yëg ni moo gën ñi wey ak ñi teew du maasum ña ngay dégg ak ñi nga gis ku koy toppandoo léegi tan far ko biiw liggéeyal na yàllaa ki xejjam baam la muy wut mi ngi nag di wootee yeew mi ngi yeewu nit te yiwee kay yabal di faj jépp lor tey jubal géewi géew mayam gi mu am may la goo xam ni gii du njot féq man dib laram laa ni seew mayam gii la tax bokkul ak genn may da dib sàmm koo gis da koy ñaani meew ku jóg ñaani meewam ba ñëw nag bu dee defub sàmm am naw la dafa yaa ko yeew sëriñ bee di xéewal di ngeen ji garab kuraasu guronam dal di far leewi leew te noo di wut gudd fan akum mucc faw ndam ak réewi réew te noo di wut gudd fan akum mucc faw ndam ak réewi réew lamat bég du am soxna ak fas suur du njébbal mu dul dog du lekkit ba suur lamat bég du am soxna ak fas suur du njébbal mu dul dog du lekkit ba suur lamat mbëg nga gis yàlla ak sab sëriñ ñu sax dàkk foo jëm ci sab xol bu wóor lamat bëgg nga xëy gis sa xol set welas te bëggul lu dul yàlla lii baaxe góor lamat bëgg nga xëy gis sa bon gii nga bon te naa moo may def ba gën gépp góor lamat bëgg nga xëy tuubi moy nga moy di réccoo ka farloo daw wépp toor la bég sa bët jël ka gii di wéy di jëm àjjanaa kii aras lii ka foor la mat bég nga jékkee ku nit yow di ree te sab xol di jëm nag ca yàllaa ka buur la mat bég ñu gis ngay wax ak képp nit te jox nag sa xol yàlla kay ngeen ji buur la ndam nga xëy ëpp laf képp nit te doo di fii ree daanee ka dóor lamat mat ndam sa kër gi ni dell ak alal aku nit te doo yàpp ku yora seen ngóor la mat ndam bu deefee la kay bugal ëllëg gaaya daa mooy nga war naaru góor lamat mat ndam te mat mbég ëllëg mat ko tey bu wér yàlla nan boole yi am bu wóor murit moo di koo xam ni bëggul dara sëñ moo di koo xam ni ñàkkul dara murit moo di koo xam ni bëggul dara sëriñ moo di koo xam ni ñàkkul dara defal ab sëriñ baa nga def ab murit ku dul ab sëriñ doo murit doo dara fexeelum murit yow baam ak murit te loo def lu dul lii du fajkat dara ku tëb bëgg dal ci cëriñ jël ak murit doo ko mat kët te doo am dara ku jéggin murit dem di yootug cëriñ dafay ñàkku yiw ñaare am til dara ku jëm ci cëriñ faw dox ci murit doxal ci murit boo bëggee faj dara lu kuy rëy rëyub dàtt ab gif la won sëriñ di murit won bu moomul dara sëriñ day bawaa ci murit dib sëriñ njëgam lii amul doonagul kon dara njëgam ndab dalay bëggataa am xanaa la ngay def ci ndab mat la wax kon dara ndaxam bépp lar bu xolam bëgg lëf lu dul jëmmi sa ngam yeyoogul dara ku bëggul lu dul yàlla dëkképp xolam narus yàlla seetub xolam gis dara narus yàlla seetub xolam gis ca lu dul ak cofeelam gu tëqul dara ko sab xol setul la yelloowulaa ji kon yàlla yow sax dara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 ña dëkke woon taaxi kaw tey jëf lu bon ña nga tey casag ya ñuy caw yi yar footol lu dégg faraj lu kër gi jag-jag bu ruu gi rot nga génn ko dem yow rekk kenn du la toppit menn xel du ko daj tërikaat sa bakkan jàppal ma àddina war te daldi wéy bala la war kon sa mbir du fi lëj am wéttal ak ñàkk waa ji ñoo xala yam buur ak dagam ya mu àndal ñoo xaloo yami muj buur ak ña koy topp ñoo yam kepp ndax ku ci dee ni cum mucim kan mu xat lëndam ba far ni kërëj njegam danga bëgga am wétal wudul xala dañ tijil sa yow tabal ci yàlla te tëj loo tëj ci sab xol lu dul moom it mu xëy ni le nit koo fi dana dee ndab loo fa dana toj nee boo fi gis dana tas kër goo fi gis dana tas waa kër ga it mujj tas àddina mbég du ci xaj àddina kër la bon ngir mas la jag te jag ku aajuwul lu jagam say aaj